am lu ñu bëgg te li ñu bëgg yaakaar nañ ne monsieur le maire mën na ba tegal ci loxo boppam du suñu njëriñ beneen bi ci des nag mu am loo xamante ni bii dama koy laaj euh, futur maire bu jëlee maire bi tey bu ko waa Ndiobène jàppale waaye Goudétar ko waa Mbacké jàppale ko ba mu jël maire bi lan mooy ay idéem ci biir Mbacké Bawol lan mooy jëfam ci diggante ak waa Ndiobène loolu bëgg naa après mu leeral ma ci tuuti mais jeunesse fii tey ko laajoon du la ne la fii mooy Selebs ñun bu ñu génnee di dem ay festival dañuy dem ñu di ñu dalal ci ay ay écoles yu luxe yu baax ay ay foyer de jeunes am fii ay ku mel ne Darou Moussi ay Kébémer mais ñun Mbàkke fii ku xam-xam ne ñun ñu ngi dund aar fii sax ngoon dañuy dem di répété mais amuñu sax salle de spectacle bu baax verdure lañu am mais verdure boo amee programme sax doog fa yóbbul ñun bu ñu amee gan duñu am fu ñu ko dalal te jii bi ma defoon benn film di ko projeté bi ñu ñëwee carrément artistes yi jógee Dakar doon joué dañu doon wax naan ancienne salle de spectacle pourtant war nañ ko mën a am jamono yu njëkk ku nekk dana la woo ku nekk dana ñëw di la dem nekk waaye ki nga dafa ñëwoon di ànd ak yow doo ko yemale ki nga xam ne bi dara xewee nga ko gis ndax politique intérêt képp la lu ci waaye mën a wax intérêt la kon nag ki nga xam ne mooy dabu si intérêt bay boo nga dabu ci intérêt ki nga xam ne amagul dara di ànd ak yow bis bu amee bay boo nga xam ne da nga am te it Abdou du teewaayam bii tax ma di ko wax man ku yàlla bind duma la waxal loo defut rus naa ko jombale naa sama bopp loolu ndax defaluma dara sama place laa yor di xëy di liggéey ñu fi nekk ñëpp seeni i place lañ bàyyi doog di tëj ñëw kon ñun duñ waxal kenn yàllaa ngi dee te gisuñu yàlla ku ñu defalu dara duñ la ko wax waaye moom mii du teewaayam bii lépp lu fi xew bu dee naqar bu dee bànneex dañ koy gis mu ànd ak moom te leer nañu ni ñi mënu koy defee ñu yëmale ko ci ñun dong waa njóobeen gii noonu leen fi jaar Jaara borom saam gis naa fi Cheikhul Khadim gis naa fi sëñ Bousso bi gis naa fi ñëpp gis naa fi Cheikh Rafal moo tax bi ma xoolee gis naa Seydi Hadji Malick ma xool sama xol sedd trop ma xam ne rek am xëy bu rafetul nañ fas jom ci ngont ndax kenn du xëyat ñu ne dañoo am xëy ba pare xëy mi ñu xam ko te dafa rafet daal ñu leen yàlla fayal damay teel a réponse euh, jox ay ay euh, tontu rek tontu bu gàtt parce que ñëwuñu woon pour meeting dañu waroon a ñëw pour présenter aussi tase si ak président association yu mag ñi ak ñu ndaw ñi nuyu leen ziyaare leen waxtaan ak ñoom parce que dégg naa am na ñoo xam ne ñu bëri borom usines yi jaar nañ fi borom ndox yi jaar nañ fi borom projet yi jaar nañ fi borom tali jaar nañ fi waaye bu ñu defee ne nit ñi dañoo réer maa ñu dof waa Tawfeex bokkuñ ci waa Njóobeen bokkuñ ci waa Guy Tataan bokkuñ ci. compétence transfert yi nga xam ne commune am na ko nit ñi nañ koy wax te xam ko te yem ci coopération yi nag internationale yi boo ci dikkee loolu kat xame la ku mel ni Cheikh Tidiane Ndiaye nga xam ko kat. mu nekk ca bitim réew am ay soxla yoo xam ne réew yi tubaab yi am nañ ko nga am ay ah, nga am ah, coopération boo xam ne yàlla dimbale na convention nga jéem a lijjanti ñoo xam ne dañuy ñëw fii yu mel noonu que du ci bëri ma nañ ko mën a def. dama bëgg ñu xam ne maire bi Abdoul Aziz Ndiaye bi war a ñëw ci maire yi génération bi ñu xam ne dana gindi maire Sénégal yëpp maire la boo xam ne mu ngi toog ci suuf ànd ak yéen maire la boo xam ne mi ngi ci cant yi mi ngi ci wind yi ca wind pëlee sax dama fay dem ànd ak yéen ci li leen neex. ak li nga xam ne moo leen naqari man duma ci du ma tardé waat di wax ne jaam laa bu yor buum sama bar jox leen benn bi may njëkk a wax digaate na nga digaate loo man a def ndax ëllëg buñ la faree kat nga romb nit gis ko jibi suur mii ah, astafurlah azim aali suur ma taseeg moom di ruus di sëgg naa ko moytu dégg naa mu wax bi mbiru otoy mbalit yaakaar naa am nañ partenariat yoo xam ne bu soobee yàlla yonent bi buñ ci àggoon incha allah rabbi li gën a oyof ci sunuy projet la muy ay otoy mbalit loolu lu ma leer la trois mois yi njëkk a toog incha allah rabi otoy mbalit dana dim benn wax nañ ko wax nañ léegi sécurité man de bëgg naa ci commune bi ci li ñuy wax fonds dotation wax ma sax fonds propre ci fonds dotation bi laay génne loo xam ne dañ am ay gardiennage yoo xam ne ko jël ci quartier yi te bu ma koy jëlee ci waa quartier bi laa koy jëlee ñu nekk parce que ñoo xam ñuy dugg ci quartier bi ñooy xam ñi génn ci quartier bi tey boo diggee éclairage public li ma njëkk xalaat ci buntu bi war naa am benn panneau publicitaire tableau bu mag bu nekk ci biti bi mën nañ ko tuddee Baye Jibi Suur bi fi jógoon mën nañ ko tuddee Baye Thierno Ndiaye mën nañ ko tuddee ci kër yi quatre points cardinaux yi est ouest nord sud fu ci nekk nañ fa def tableau boo xam ne bu leer naññ la ba ku fay dugg nañ xam ci koñ bi nga dëkk am dëkkoo ci koñ bi te loolu lépp sécurité la boo xam ne boo yoree sam xar bu la neexee fu la neex nga sànni ko ci dëkk bi boo xëyee da ko fekkaat fa nga ko fekk kenn du ko jël loolu suñuy projet la bokk fi may terminer di leen wax nañ ànd ak sunu ngëm bi naxaate bi ëpp na ci ñun te yenn yi kersa la na jëm ci taqwa ak iman bàyyi naxaate bi li nga xam ne mooy projet yi muy lu dëggu te wér te nga xam ne commune mën na koo def ànd ci nga wax leen ko li wàjji laay kër ñu ànd ak yow wateel la ci nii maa ñu bàyyi la ci nii waaye kat xëy na Abdoul Aziz taxaw fii danaa ne ah tëli bi de danaa leen defal tëli waa waa waa tawfeex fii de danaa fi def benn usine boo xam ne danaan déedéet waaye yow ma yàlla def ma gagné te yàlla na ko yàlla def ma gagné ma ñëw romb leen di sëgg di laay bopp ana usine ba ana loo xam ne état moo ko moom état nag ñëpp la fi dekkal ñun ànduñu ak état tey ànduñu ak moom mais état dañu am sun loo xam ne day revenir boo xam ne day génn ci ñun di dugg ci ñoom muy impôt yi nga xam ne ñun ñoo koy fay muy sunu alal te da ko war a delloosiwaat ci askan wi te gisuñu ko ñoom ñoo war a mën a defar ay tali ñooy defar ay usine ñooy defar lépp loolu état ko moom mais du commune bu ko moom ñun amuñ doole jenn ji kon nañu waxante dëgg te bàyyi naxate yi encore une fois maa ngi sant bu baax ne man daal boole ma joxe seen kàddu ci bokk moomeel bi a conseillers yi ma àndal ak conseillers yi ma àndal incha allah rabi seen ndigal la ñuy wéy. bu ñu ñëwee fii rek am na foo xam ne waroon nañ faat mën a taxaw def manifestation bi ñun dama dégg ni ñi naan bu ñu jotee mairie bi dañu leen defal ay place publique ñun taxawuñ ci ay place publique ay affaire caaxaan la ñun case vert lañu indi te case vert yi fii laa koy waxee am ci kanamu journaliste yi laa koy waxee. case vert yi ñuy wax am nañ ay partenaires muy waa Nestlé Sénégal ñoom bu ñu paree am nañ partenaire ak ñaar ak ñoom. case vert mi ngi dollu ci 20 mètres sur 25 am nañ espace bi fii ci Guy Dakar am nañ ko ci taw féex mën nañ ko faa def def fa wifi gratuite xale yi di fa jàng bu dee école la mën nga faa toog ci wet gi di jàng bu dee alxuraan la mën ngaa toog ci wet gi jàng bu dee mën ngaa toog ci wet gi jàng mag mu dox ba sonn mën naa ferenkulaay yi ñëw ba foofu féexlu toog ci ba gi kenn du ko déranger loolu lañ xalaat ñu muy case vert muy loo xam ne diine diine nangu na ko ñëpp nangu nañ ko islam nangu nañ ko moom laa bëgg a installé fii ànd nañoo yéen ci bëgg-bëgg bi ngeen wax ngor gi ngeen wax danañ ko ànd du dañ bu ñu jotee mairie bi le 23 premier mois bi ñu jël service li ngeen wax dañ ko appliqué arrêté bi nañ ko def pour quartier bi autonome nekk ci lim nekk éclairage bii dès demain Cheikh Tidiane Ndiaye fee buntu baay ji bi suut maa fa defoon benn console boo xam ne mil laa ko jëndoon dafa paan yi des kii sama ginnaaw Cheikh Tidiane dana ko jënd suba waxtaan ceeg yéen ñu éclairer quartier bi ni ngeen ko bëgg ñu def ko maa ngi sant maa ngi gërëm xel mooy fattu di baalu ak taxawaay bi yàgg na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ca kaw ca kanam merci beaucoup merci beaucoup euh, Cheikh